rafetati na de fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin Cheikh Alxaaji Malick bu ñëwee wuyu si Cheikh Alxaaji Omar mat na sëkk fa tabaarakallahu si Malick si ñabdu ñu ngi lay ziyaara li ñu wax ci ñii la ñuy wax ci yow man yaay sama sëriñ léegi nag yow say sëriñ sama sëriñ gis na sëriñam Ah? ah man sama sëriñ daal gis na sëriñam di la jaale suñu jur wi ñu bokk moom mi toog sëriñ Sidi Ahmed si rahmatullah alayhi wa radiyan lu buri ceer mooy wayjuram jóge fi bu yàggul rek fekki ay maamam ak i wayjuram yal na yàlla taas ñu ci barkeem yokk leeram te ñu dese barke bi duma wax ngeen dese barke bi ndax dañ ciy bëgg kon yal na ñu dese barke bi te yàlla dolli ay leeram wanale ko ki maamam ak way juróom wu tedd wa Seydi Aboubacar Sy wallaay suñu xol sedd na guy lii nga def jekk na ba mel ni bakkan ci xar kanam fa tabarakallahu la ma waxoon Serigne Moustapha responsable moral moustarchidina wal moustarchidat ca Grand Théâtre moom laa lay wax maa ngi lay ñaan daal lii bu ko wuuteeti ndax sa yëf la yaa ko moom ndax ku ne Cheikh El Hadj Omar ne Cheikh El Hadj Malick kenn mënu leen tàqale boole naan wala boole tuur rek loolu la yàlla dogal tey ci te kër si Hadj Malick nag nangu ko lool lool lool lool wane ko ba mu jeex tàkkit nag te dina ñëw ci biir waxtaan wi jërëjëf si malik ñu continuer maa ngi yemoon ne maa ngi nuyu sama bopp sama loxo. li tax ma taxaw ci nag moom xam na man xam na muy Thierno Nourou bii nga xam ne moo toog di porte parole lu kër gi fa tabarakallahu Thierno Nourou bu Thierno Cheikh Oumar Thierno Muntaga bu Thierno Taaha bu Cheikh El Hadj Oumar Thierno Nourou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara yàgg ñi ngi ko bokkal ñépp dalee ci Thierno Chérif Tall Cerno Abdoulaye ak ñi ñu fi tudd ñépp ziyaare istimdaadin wa tabarrukin wa taalluqin wa tawassulin teg ko nag ci sama loxol sëriñ moom mu jottali leen ko fa tabaarakallaahu maa ngi ko koy wax léegi bi ma koy nuyu Cerno Nuuru ma ne ko bi ma demee Belgique mbokk taalibe yaa ngi may wax liggéey bu rafet bi mu fa def fa tabaarakallaahu am na wëllëre bu baax abu keneme fii la nekkoon ci man tabaarakallaahu wax ma teraanga ya nga ko fa defal ndax fa la nekk di liggéey waaye ba mu ñëwee kóolute foofu la mën a yem miinu ko xamu ko waaye daf ko woo ci biir mbooloo mi mu ñëw mu jël micro bi jox ko ne ko waxal xam nga loolu koo xamut doo ko ko def ah ma ne abu mbaa wax nga lu jub mu ne ah taqale naa ba génn ci rek ma ne ko waaye comme dégg nga tukkulóor te intellectuel nga xam naa ne di nga wax lu jub rek mu ne ma taqale naa ba génn ca de te sëriñ bi nee na kontaan na ma ne ko alhamdulilah comme sëriñ bi kontaan na rek baax na Italie tamit noonu lañ ma wax ba ma fa jaaree yi mu fa def yépp moom it fi tànki mag ñi jaaroon yépp mu ngi fi jaar taal ñu ngi lay ndokkeel di la ziyaara waaw di nuyu ñi nga xam ne tamit di nuyu kii nga xam ne mooy Marème Mbeng waaw ah, Mariam Mbeng ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ah, joojoo taal moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di nuyu Fatima Abibu Taal moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar te wilaaye léeg-léeg duñ ci sóor jigéen ñi waaye jigéen ñi dañuy am wilaaye de lalay lay won loolu mooy ku ci jaan màtt doo lijjanti bu góor la wala bu jigéen nañ ko lugg ba pare rek doomu nitu yàlla noonu la mel kon nag ñépp ñu ngi leen di jox wàccuwaay bi nga xam ne moom la ñuy jox jigéen ñi góor ñi moom lañ leen jox yéen jigéen ñi te nangu naa ci làmmiñu cam na yaxyaa yi mu wax ma mu ne ma baaba ma ne ko am ah, mu ne ma ah xadara ba day ci xadaratul ilaahi ma ne ko ah, mu ne ba ma fa demee de gis naa fa jigéen ju ma yéem ma ne ko kan la mu ne ma soxna asiyatu si Malik mu ne ma soxna asiyatu bu Cheikhul Xaaji Malik ne ma gis naa ko fa fa tabaarakallaahu di nuyu tamit Thierno euh, Omar Muntaga Ahmad Tall moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit Fadima Abibu Taal soxna Fadima ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Cerno Omar Muntaga Ahma Ahmad Taal di nuyu Rayha Rayaana Rayaana Jóob madame Mbeng moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu Xadijatu Cheikhu Umar Taal moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu Massayer Sarr moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu Thierno Issa Ba moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar waaw ñu ne Umm Muntaqa Ahmad Cheikhu moom la tudd mooy turam dëgg ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara fa tabaarakallaahu di nuyu nag kilifa yi fi nekk yëpp di nuyu surafaawu yi boo gisee ma leen kër Cheikh Omar ay shérif lañ kër Seydul Xaaji Malik ay shérif lañ loolu ma nangu ci làmmeñu Cheikhul Xaaji Abdul Aziz mu lim silsila Cheikhul Xaaji Omar ba ci yonant bi lim silsila Seydul Xaaji Malik ba ci yonant bi ne ñoom ñaar ñépp shérif lañ waaye dañ nëbb seen sharafu tiin feeñal seen sharafu diin maa ko nangu ci ñu Cheikhul Xaaji Abdul Aziz mu ne Seydou Laaji ak Cheikh Al Hadj Omar seen seen nekk shérif ci deret dañ koo nëbb feeñal seen nekk shérif ci xam-xam mu ne waaye ay shérif xàqan lañ imaam Lamine Diop ku ko xam ci yéen mu ngi egg silsila bi ku ko soxla rek boo demee ci imaam Lamine Diop dina la ko jox moom yàlla baaxee na ko mu ngi moom sëñ Abdou eh, El Hadj moo ko bind. defoon na ko ci kaset man mii amoon naa kaset bi waaye dafa réer ci samay biiri kaset xaw ma fu mu fa toll boobu moom moo ko limal boppam ba ci fatimatu bintu zahra waaw fatimatu zahra bintu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ca la waxee woon moom si ñab du mu ne xanaa xamuleen ne am na maqaama yoo xam ne kenn du ko am ci tariqa bi te nekkoo sérif mu ne looloo tax Cheikh Al Hadj am lim am Seydul Hadj Malick am lim am kon ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp di teg nuyoo bi ci loxo professeur Moussa Daaf waxtu wi lañuy njëkkalante di ci jiital rek ñenn ñi imam Lamine Sakho tuddal na ma leen ñi ci des nag ma jël ko teg ko ci loxo imam Babacar euh, sàll bi toog moo mbokkam mi mu feggool di ah, ah yow Bachir waaw kañ jógee ba Saalum imaam tudd na ko di nuyu tamit bu ma nee taal jël naa nuyoo yépp nag teg ko ci loxol ki ñu fi taxa daje mu di Thierno Muntaga Cheikh Oumar Muntaga Taha muy Thierno Papa Tall bii toog jël nañ nuyoo yeeg ziyaar yépp teg ko ci loxom mu jottalil ñu ko woy jur wa bi nga xam ne moom lañuy ñuy xaarandi muy xalifa tey ci kër Cheikh Al Hadj Omar sharqan wa garban loolu la ko yàlla defal moom moo ñuy jëlal nuyo boobu moom Cerno Papatal tegal ñu ko ci loxo Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Umar fa tabaarakallaahu ndax mu gën a mat kon Cerno Papatal ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel ci bés bu tedd bu màgg bi la yàlla wërsëgal yaag ñi ngi ko bokkal ñépp ak famille njóobeen bi nga xam ne ku ne ndey ne bàyyi ñoom ñépp a ngi fi ma jiiteel ci rek suñu goro di alxaaji njaaye jóob mu yóbbaale ñoom di jóob ak mboolem famille njóobeen ndax moom ku ne wàllu ndey ne wàllu bàyyi ku ne wàllu bàyyi ne wàllu ndey waaw ndax wàllu way juróom mu jigéen ah ci njóobeen lañ bokk kon nag ñu ngi lay nuyul wàllu càmmoñ wi muy njóobeen ñoom ñépp a ngi fi Sidi Diop barki démb ju alaaji Sidi Diop jokkoon nañ barki démb mu ne mu nga Dubaay bés bi ñuy jokkoo mu ne ma maa ngi nii di ju quitté Dubaay pour dem Arabie Saoudite dafay dem umra mu ne ma waaye sama xel ak sama xol yépp a nga fa yebal naa njaboot gi waaye njaayaa nga fa su fa njaayee nekkee ñun ñëpp nga fa kon loolu lañ la doon jottali ci kàddu njóobeen di la santal ñépp nag Omar Diop luy may wax nag caméraman yow di nuyu waa Chérif Dabakh TV lii en direct la àddina bi yépp a nga koy seetaan waaw ne nii ñëpp a nga koy seetaan ci àddina bi Sénégal ak bitim réew surtout nag bitim réew ñëpp a nga koy seetaan moo tax maa ngi ci occasionné wu di nuyu waa bitim réew yépp cinq continents yi fu ci nit mën a nekk ba ci am na soppe boo xam ne mu nga ca ambassade Sénégal bi nekk ca eh, Palestine fa tabaarakallaahu fa la nekk benn programme du ko rëcc ci Chérif baax TV waaw ak waa Gambie waa Banjul ñoom it fi mu ne nii ñu ngi koy seetaan en direct Belgique France amerique ak fépp rek Italie ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Omar yow laa koy sas du gis nga mbooloo mi ni mu mel bu déwénee nag ma indil ay caméra ay télévision yoo xam ne donc da seet foo koy installé fii pour ña ca gannaaw gannaaw di gis ndax kumpaay kumpaay xool mooy kumpaay dégg mooy xool mm, nit ñi dañuy bë booy wax te gisuñ kiy wax day manki seen teewlu day manki seen teewlu léeg-léeg da ngay gis dañuy yëqamtalu ba sonn rawati nag dañuy bëgg a gis kilifa yi ah su ko defee bu déwénee nag ma indil télé kii télé écran télévision yooyu ñaar wala ñett rek nga installé ko ci tant bi ñoom ñëpp ñu mën di gis incha allah mu gën a rafetal rek organisation bi loolu moom bàyyi leen maa ko yenu insha allah kon su ko defee mbokk yi ñu ngi waxtaan ci koo xam ni ku neexa waxtaanee la waaye ku jafe waxtaanee la Abdoul Aziz Seck yow technicien directeur général bi ñu ngi lay nuyu yaa ak Omar Diop caméraman ak ñi ci seen ginnaaw yépp ñu ngi waxtaanee koo xam ni ku neexa waxtaanee la waaye ku jafe waxtaanee la neex na waxtaanee ndax ay jikkoom te lim ñuy jur jur mag ñu fuuf mën nañu wax ci moom ndax ñoo bokk génération maanaam ñoo bokk di dund muy jëf ñuy gis muy wax ñuy dégg kon kooku ne waxtaan ci moom neex na waaye jafe na la tax mu jafe mooy xëy na la koy waxal bëggul ku ko wax ndax nit yàlla yu bari bëgguñ kuy wax seeni jëf dañ bëgg ku leen koy nëbbal waaye jamono moo yegg foo xam ne tey boo amee kilifa te génnewoo ko wan ko nit ñi ñu xam ko dañ ko fiy jéggi rekk ba loru te dara jaru ko yor jamaa yor or yor jamaa ci sa loxo ndeyjoor yor or mooy urus piir ci sa loxo càmmoñ di sàggan benn nit wan la përëm nga topp topp përëmam boobu ba sànni sa or ak sa jama xam nga loolu doye di fa la yem te dafay xew ci jamono dafa xew ci jamono dangay am kilifa goo xam ne mat na kilifa li ko yàlla doon doyee yépp incarné na ko benn waay bu mel ni Sidi Maxtar Kunta Sidi Kiné ñëw xoymet la loo xam ne du dara nga topp ci koom bàyyi sa ndey bàyyi sa bàyyi bàyyi sa lëpp topp ci koom mu sànk la ilaa yawmil qiyaamati musiba la loolu la wolof di wax ni am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam koo ko gën fa tabaarakallaahu lool rekk a tax ñu jël tey kilifa gii gannaaw bi ñu waxtaanee ci ay waajuram ñu jël ko moom tey mu aye bu déwénee it keneen aye bu déwén jéegee keneen aye ila masha allah waaye ci ndigalu waa daayira bi nag daayira bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm loolu professeur Daaf moo leen di sant bu leen ko bàyyi foofu de modestie bu mu tax ngeen bàyyi ko foofu Habibu Cerno Habibu Muntaga na na dugg si waaw kay am na loo xam ne loo woyof woyof ñun duñ ko nangu kon fa tabarakallahu taal taal taal ñu ngi lay ziar bu baax taal ñu dalal ko loolu moo tax Cerno Chérif tey ñu tànn sa soppe bi waa daayira bi tànn sa soppe bi sa xarit sa wëllëre sa lëpp di Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh Oumar pour waxtaan ci moom balaa moo ñëw nag ñu jëw ko donte jëw daganut dinaa ci joxe benn exemple sëriñ Babacar si Abdul Aziz sëriñ Mbay Abdou yéen ñépp xam ngeen ko dafa mu may nettali ma dem seeti ko keroog maag Sidi Kiné mi ñoo ànd Sidi Maxtaar Kunta ñuy waxtaan rek ci wàllu nitu yàlla yi mu ne ma shérif ma ne ko am ah, mu ne ma dafa am ku nekkoon fii ci Tiwaawan fii ma ne ko waaw mu ne ma ñépp jàppoon ne dof la ndax melokaanu dof la yoroon ay sagar lay sol daanaka ci mbalit mi rek lay gës lay gës lu muy lekk sax la koy jëlee waaye sëñ Mbay Abdu nee na ma di ko xool du def mukk jëfi ni dof nee na ba bés ma ñëw fekk ko ci buntu zawiya bu mu taxaw ma jox ko loxo nuyu ko ne ko am na tur bu ñu ko daan wooye waaye dégg naa noo tudd Mahmoud ma ne ko Mahmoud de laa tudd ca yàlla xawma ci nit ñi nag Mahmoud laa tudd ca yàlla xaw ma ci nit ñi nag kon dama la bëggoon invité añ ak yow ñu añandoor li may togg añ nag sama yónnee dépense may ko ci laa lay toggal añ mu ne ko ndax ma lekkati lu lew moom kiñ ne dof la de mu ne sëñ Mbay Abdu ndax ma lekkati lu lew boobu sëñ Mbay ne ma defar añ bu baax ci ëllëg sa mu ñëw nee na ñu añ ba noppi ma di ko laaj nag ci mag ñi laaj ko ci dund sëriñ Babacar Si ndax fekkee na ko mag la laaj ko alaaji Mansour laaj ko alaaji Abib laaj ko sëriñ Alaaji Malik nee na bi ma yegsee ba ci sama papa ne ko waaw sama papa ala jabdu nag loo xam ci moom mu ne ah jotaay baa ngi yàqu nag ndax yaa ngi may jëwloo jotaay baa ngi yàqu de yaa ngi may jëwloo sëñ Babacar ne ko ah man lu baax rek laa bëgg mu ne ko loolooy jëw ji mu ne ko kon lu tax ñi ma la laaj nga wax mu ne ko ñooñu dundatuñ te yonent bee wax ne ku fi jógee na ngeen nettali yu baaxam yi waaye sa papa ngi dund boo bëggee ma wax ci moom demal woo ko mu ñëw maag yow ñu ànd dem ba ca moom li may wax doonte lu rafet la ma wax ko ci kanamam mu di ko dégg <laughs> xam nga ne kii du dof de sëriñ mbay nee na keroog wax na ma xeetu xam-xam yoo xam ne dafa mujj yéemu ci yàlla nee na waaye semaine lañ ci teg gisatu ko semaine lañ ci teg rek gisatu ko foofu ci xam na foofu yëpp jaaratu ba fii muy fii ma toog di wax ak yow bi ma ko mujjee laaj dafa ne dégg naa ne góor gi gaañu na kon nga xam ni eh, wax ci nitu yàlla yombut waaye su fi nekkee nga nekk fi nag moo dàq donte jëw la nag moom dana ñu ko baal Thierno Bachir Mountaga daal Cheikh Oumar ñu ngi koy jëw jëw bu rafet la kon fi may ubbi waxtaan jëme ko ci moom damay def muqaddima muqaddima ci wolof moo di laytaay laytaay ci waxtaan dafa am bu dee ci kuy bind téere moom la ñuy wax préface boo ko deful ci livre livre ba du am valeur moo daloon Mouhamadul Misri ak Aliou Haradim baraada jawahirul maani bii ñu gis Cheikh Sidi Ahmed Tidiane moo daan wax euh, euh, nu mu tuddati wax naa ko léegi aliou xararim di bind waaye Cheikhuna Tidiane dafa doon maamam ci bañ a bind mën naa bind nag moom Cheikhuna Tidiane mën na bind waaye daawul bind mën na jàng ndax daf daan jàngal Alxuraan te jàng na Alxuraan ñëpp yëg nañ ne xam nañ ne juróom-ñetti at Alxuraan kon jàng na xam-xam yëpp wax nañ ne ci ñaar fukki at ak benn ci la ko xam moom Seexuna Tijaan yi kon jàng na kenn rek ngay taggee jàngoo muy tagg ci moom al ummi yi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam nabiy al ummi yi alladina yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil yonent bi rek nga ne ngay wax jàngul muy tagg ci moom waaye keneen koo ne jàngul rek xas la ci moom Seexuna Tijaan yi nag jàng na waaye bindul téere maanaam bindul livre nii nga xam ne nii la ko Seexul Xaaji Omar defee nii nga xam ne nii la ko Seexul Xaaji Malik defee nii nga xam ne maam Abdallah Niass noonu la ko defee ak njaboot yi donnu tariqa bi yépp ni ñu bindee na tiijaan yi moom bindul daf daan wax ñuy bind risalaat yooyu nga gis yépp mu jógee ci moom du lum bind muqaddam yi ñoo ko doon bind Seydina Cheikh di wax Aliou Harazim Barada nag bi Cheikhuna Tijaani daan wax mu di ko bind tuddee ko Jawahirul Maani bi mu paree nag mu jox ko Muhammadul Misri ndax moo doon imaamu zawiya Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi mu ko joxee imaam euh, Muhammadul Misri mu xool ko ne ko rafet na waaye amul préface te téere ku koy bind dafa war a am préface moo tax préface ba Muhammadul Misri moo ko ko moo ko bind kon Cerno Bachiru balaa ñuy wax ci moom du moom déedéet Cerno Bachiru du moom xam nga wax ji kan la Cerno Muntaga wax bi Cerno Muntaga moo ko moom waaye Cerno Bachiru moomu ko Cerno Bachiru bam moom balaa moo ñëw yal nañ ñu ko yàlla defal ñu toog bay waxtaan ci doomam ji di Cerno Cheikh Umar bu boobaa nag la Cerno Bachir di aye waaye tey Cerno Bachir ayewul de donte ci moom la ñuy waxtaan moomul waxtaan wi ki ko moom mooy way juram Cerno Muntaga Daaxa Cheikh Umar maa ngi ko teg ci waxu soppem ba Cheikhul Haaji Abdul Aziz radiyallahu anhu nee na Seydi Aboubacar dafa toog fii ci saal bi ñépp di ko nuyu di ko tagg mu ne ah tee ngeen cee teey man résultat wu Alaaji Malik la bàyyi leen ba ma màggale <laughs> waaw mu ne noonu nga xam ne noonu la ko Seydi Aboubacar waxee noonu la ko alaaji Seydi Hadj Malick waxee woon mu ne dafa toog fii ñu di ko tagg mu ne ah teel na bàyyi leen ba ma màggale ëllëg ngeen door maa tagg kon ba du ñas yaag sa équipe technique ak taggkati yonent bi yéen ñépp ñu ngi leen di nuyu ma jël ci mu muniiru ak kelli mu yóbbaaleel ma sayit ak ñi ci des ñépp tabaarakallaahu du noonu waaw alaa Jóob jaru ko su ko defee Cerno Muntaga moo moom lii tey ndax Cerno Bachiru résultat wu Cerno Muntaga la ni nga xamee ne ay magam noonu la ñu nekkee résultat wu Cerno Muntaga lu tax ma wax ko waaw kañ wali yu boo gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kullu waliyin ala qadamil mursal nee na wali yu boo gis dafa am ndëggu tànkam bii ndëggu yonent bu mu ko teg di ko roy lettre al lettre ala du noonu ngeen waxee lettre ala lettre xaw kañ mangasa pas par pas moo tax ngeen déggoon Seydul Xaaji Malik ne mm, ah, yonent bi day moo ma ëpp tànk moo ma ko gën a yaatule waaye billaahi fu mu teggee ma teg danaa ko roy ba fu mu teggee ma teg mu ne am naa ful la ju day nii saxaaba yi gis ko rek lañ ma ëppale ci moom toog ak moom jamono waaye billaahi fu ñu ne Seydina Aboubacar ëllëg Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali mu ne man Malick ma juróomeel leen mu ne ndax am naa itte ji aleykum salaam wa taal taal taal waaw kañ taal ñu ngi lay ziar bu baax taal taal di la jox sa wàccuwaayu maam jigéen ñi tey yéen a aye te di ngeen xam li tax ma wax leen ko gis nga wali boo fi dégg wala ab yonent boo fi dégg lam nekk ndeyam a tax mu nekk wali yi boo fi gis na dalee ci Cheikh Alxaaji Omar ba ci Seydul Xaaji Malik maam borom Touba maam Abdoulaye ñas mag ñu baax ñi ngi fi dégg ñépp liñ am seen way jur yu jigéen yi seeni ndey ñoo leen ko fàggul jigéen mooy fàggu pour doomam góor porteur de voix la kon li tax yonent bi ne kullu waliyin taal bismillah taal taal kullu waliyin ala qadamil mursal dem ñu bu baax yonent boo gis na bi nga xam ne su waxee yonent boobaa wax su jëfee yonent boobaa jëf yonent boo gis dama bëgg waxtaan bi gën a porté moo tax ma jëlee ko ca kaw kullu waliyin ala qadamil mursal yonent boo gis dafa jël ndëggu tànkam waliyu boo gis kon dafa jël ndëggu tànkam muy tànku ndeyjooram am ci yonent bu mu teg tànkam fa mu ko tegoon tànku càmmoñam mu jël ko teg ko it ci yonent boo xam ne tànkam fa mu ko tegoon la yonent booba daan jëfee lay jëfe lam daan waxe lay waxe maa nangu ci làmmeñu Cerno Yaxya li mu wax ma ne bés day waxtaan ak maam borom Touba muy Cheikh Ahmad Bamba ma dugalaale ko ci biir waxtaan wi mu ne may waxtaan ak moom ba yàgg mu ne ma Yaxya ma ne ko ah, mu ne ma ah, man day dama doon ñaari yonent moo tax ñetti yonent moo tax ma sonn mu ne ma ne ko ah, mu ne ko dama doon yonti yàlla Suleymaan mu ne ko alal yomb ma mu ne ko waaye ci samay sët lay gën a feeñi ëllëg waa papa amadu Ngom bu doomu xalifa bi Baye Lamine Ngom di xalifa maam alxaaji Ngom mooy yegg si nii papa papa Ngom yegg si nga toog nii waaw way juram mooy xalifa bi tey ca Paal Baye Lamine Ngom a ko jur Baye Lamine Amadou miñ ko duppee moom mii moo ko jur Amadou Mamalaaji Rawaan Ngom moo ko jur fa tabaarakallaahu nii rek la diine ji bu xewlee Cheikh Umar mooy bàyyi ñëpp de li ma doon wax ñëw na de waaw ah, Cheikh Umar mooy bàyyi ñëpp ku bëgg ak ku bañ nag loolu moom yàllaa ko ko defal mooy bàyyi ñëpp ci diine Chérif Tayib Aydara Karaaran yow moom damay yegg ci karaaraa ji wala ma dolli ci ba muy xalal la ko yaayam ne woon karaara ok yaag shérif mohammed bare kon Cerno Yaxya ne ma sëñ Tuubaa moo ko wax mu ne ma maag moom ñoo toog ca Jurbel di waxtaan mu ne ma Yaxya ma ne ko loolu ban at la woon mu ne ma diggante mille cent vingt ak 1921 nee na ñu toog di waxtaan man maa ngi koy wax profe maa ngi koy wax keroog Thierno Cheikh Oumar Ba maa ngi ko koy wax ma ne ko ah yéen nag man ni man ni may doxalee mu ne ah, ma ne man dama bëgg lu ne ñu indi date ba indi bés bi indi jour bi suñ ko mën mënee indi waxtu ba sax ñu indi ko ndax jamono moo koy laaj léegi jamono moo koy laaj ndax ay sanat la yoo xam ne dafay dëgër xam nga li xew léegi ci jamono mooy di naatalal sa sëriñ rek. lu cay dëgg nga wax lu ca du dëgg nga wax na na jëm koo rek te am na loo xam ne boo ko waxalee sëriñ bi te sëriñ bi xam ne nekkut ci moom jippi na la bu yàgg yow mi koy wax mën na laay ormal nag ne pat waaw dafa am sama benn wëllëre entre parenthèse kilifa la nag ñuy waxtaan bés maag moom mu ne ma diw ma ne ko mu ne ma ah mu jàpp sëriñam bi di duufalal rek di duufalal rek di duufalal mu ne ñu ñibbi ci kër gi ma ne ko saa yow li nga doon wax yëpp yaa ko tey mu ne maa ko tey kay ñëppay fen may fen rek xam nga jamono bu yeggee fii jamono bu mu ne ko maa ko tey kay ñëppay fen may fen rek damay seet luy naatalal sama sëriñ ma wax ko rek te looloo ëpp ci waxtaan yi léegi au lieu ñu teg ko ci xam-xam au lieu ñu teg ko ci ragal yàlla au lieu ñu teg ko ci waaye ci dóor marto rek lañ koy teg yaa ngi yow miy wax yaa ngi bëgg a dóor sëriñ bi pour am lu jógee ci sëriñ bi ñëw ci yow moo xam xaalis la moo xam daraja la wala mu di la yónni ci barab yi ngay dem am na ñu bari dóor martu sëriñ bi rek a tax ñuy wax ci sëriñ bi waaye waxuñ ci ngir yàlla boo demee bay wax ci sa sëriñ jiitalal yàlla te bañ wax lu amul te loo ciy wax nga gistu ko date précise boo ko ci amee moo gën ndax jamono moo ko laaj maa ngi koy wax ci am na Cheikh Omar Ba keroog fa tabarakallahu mu ne ma entre mille mille neuf cent vingt la ak vingt et mu ne ma ñu toog ci Jurbel di waxtaan maak moom moom sëñ Tuubaa mu ne ma Yaxya ma ne ko mu ne ma dama doon ñetti yónnante moo tax ma sonn mu ne dama doon yónent yàlla Suleymaan moo tax alal yomb ma mu ne ko moo tax sama sët yi lay gën a feeñ ëllëg mu ne ko beneen bi dama doon yónent yàlla Isaa moo tax danañ ma waxal lu ne ñu ngi ma naan yàlla laa te duma yàlla duma yàlla yaxya duma yàlla nee na keroog foofu yàgg na fa ne ko duma yàlla duma yàlla ma azallaahi duma yàlla duma yàlla ah, mu ne ko diw duma tudd turam mu ne yàgg na ci ba ne ko diw fu ma génnee mu ne ma yàlla jàngoo mu ne ma def li yonent bi santaane ñu tër ko ma tibb suuf sol ci gémmiñ gi ndax yonent bi moo nekk kul yaakaarloo yow ne la yàlla nga tër ko tibb suuf sol ci gémmiñam pour won ko ne ko duma yàlla xadiis yonent bi la ah, dama dul tudd tur waaye Cerno Yaxya tudd na ma tur wi mu ne ko diwa ngi nii fu ma génnee ne tëll ci mbooloo mu ne yàlla jàngoom loolu la daan def sëriñ bi moom wallaay ne na ko neexuma te fu mu ko defee tibb naa suuf ñu tër ko ma sol ci gémmiñ gi ne ko duma yàlla waaye mënuma ci dara ndax damaa doon yonent yàlla isa mu ne ko beneen bi nag dama doon yonent yàlla muhammad te kenn xamu ko moo ma indil coono bi ma am moo ne tiijaan yaa ngi nii gëmuñ ne sax waliyu la dañ yaakaar ne rek kuréel jinne ji jommale la te yaxyaa moo ne waliyu la yaxyaa waliyu la yaxyaa waliyu la kon loolu dama ko indi bay na xaw say ni entre parenthèse li imam doon wax ma fekk ko si ah, in bracket bu dee ci anglais comme xam naa am na anglophone yu mu bëgg ñu dégg ko moo tax mu def discours bi en anglais su ko defee wëli yu boo gis nag dafay jël tànkam ndeyjooram teg ko ci benn yonant lam daan jëfe lay jëfe lam daan waxe lay waxe mu jël tànku càmmoñam teg ko ci beneen wëli yu Cerno Seydou Sow Cerno Cheikh Omar moom ma doon tudd ñëw na aw kañ moom xam na li tax ma tudd ko kañ dinañ ci ñëw léegi ñaari tànkam yooyu nag lay naanee boo demee ca biir moom la Seydul Xaaji Malik sama am ne min xadaratayni bu dee ci ñun xadara ahmadiya ak muhammadiya cerno pàppat waaw kañ cerno Seydu tabaarakallah soo kañ cerno Cheikh Umar Ba kon bi ma lay tudd yaa ngi koy dégg waaw kay su ko defee dana ci ñu danaa ci ñëw léegi Cerno Muntaga nag mi nga xam ne moo waral wax ji tey dafa doon ñaari yonant ah Cerno Nuuru ngeen baal ma de kuy wax ci sa maam moom rek te te ya toog ngeen baal ma ñoom ñëpp jarbaatu Cerno lañ moom mii Cerno Cheikh bii yaayam ak Cerno Bachiru ñoo bokk ndey ak baay yaayam moo doon magu Cerno Bachiru Cerno Seydou Male moom it way juróom ak Cerno Chérif Bale ñoo bokk ndey ak baay Cerno Chérif Male nijaayama ah, nga xam ne lu bari Cerno Chérif maa ngi koy lijjanti de waaw waaw mu ne Cerno Seexu Ba bii maa ngi ñëw foofu laa jëm si bul bul yax bul bul dindi sama lañ ci nag <laughs> taar <laughs> waaw kañ moom dafa bëgg a sàqami sama lañ ci de moo tax damay dummóoyu li nga nekk nekk sama sëriñu sëriñ nag damay dummóoyu boobu moom dama ko jottali bàyyil rek yàlla def nag Cerno Muntaga taaha cheikh Umar dafa doon ñaari yonent dafa doon yonent yàlla Suaybu te bu ma duggee tuuti ci loolu di ngeen ko dégg li tax ma wax ko dafa doon yonent yàlla Suaybu doon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax fi mu yegg ci yàlla mu am ko doon gi mu doon yonent yàlla Muhammad moom leer na sallallahu alayhi leer na ci jamono moom moom magoon Cerno Saidu Nuuru loolu maa ngi ko jëlee ci làmmiñu Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikh ma moom magoon Cerno Saidu Nuuru moom Cerno Muntaga Cerno Saidu Nuuru nag jox ko orma joo xam ne mosu koo jox kenn Cerno Bachiru bi ma koy nettali mu ne ma xam nga ne Cerno Saidu ku tàng la woon ma ne ko waaw mu ne ma waaye bu mosaan di ñëw di seet si sama papa ca buntu balay raamee ba yegg si mu ne ba yegsee toog feek Cerno new ko bismillah moom du yëkkati du toog du wax wax ma ci yu xóot seen diggante kon car na Cerno Muntaga mooy wax ji ci la ma li mu ne sëriñ kër si radiyallahu taala moo tax car na Cerno Muntaga dëkk si Louga waaye fasul woon na yéene dëkk Louga sëñ kër si moo ko ñaan ne ko deretu Cheikh Umar nga xam-xam bi nekk ci yow wilaaya gi nekk ci ñëw boo réeree ci àll bi rek kenn du ko jëriñoo dama bëgg nga ñëw ci biir nit ñi jëriñ leen ñu jëriñu ci yow ak yam ko wax yépp ba góor gi nangul ko loolu nag moo may Cerno Muntaga xoolal ci jamono yi may wax joboot ni mu jobootee Cerno Muntaga ni ko yàlla mayee njoboot waaye mu jëfandikoo la benn yonent bi mu roy teg ci tànkam waxoon mu yonent yàlla Suaybu yonent yàlla yàqub dama juum ngeen baal ma yàqub yonent yàlla yàqub moo waxoon doom yi ne leen laa tadxulu min baabin waaxidin wa duxulu min abwaabin mutafarriqa du loolu la waxoon doom yi waaw kañ Cerno Muntaga ñëw fekk si ko ci loolu ndax am na ñaari Cheikh Umar du noonu Cerno Muntaga am na ñaari Cheikh Umar njabootam yépp daf leen séddale ndax dégg laaye ji yàlla wax ne laa tadxulu min baabin waaxidin wa duxulu min abwaabin mutafarriqa benn Cerno Cheikh Umar bi moo meññi nii Cerno ñoom Pàppataal ñii beneen bi mu yóbbu ko ca Kawlax mu nekkoon fa professeur Cerno Abibu bii fi jógee Cerno Bachiru toog moo njëkk a nekk conducteur train express Dakar Mali ci xamit ne i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur wala déet yëg ne jamono dafa laaj kuy yëngu di tuur ñaqam mu jël doomam yépp orienté leen ñii mu bàyyi leen ci daara ji ñii mu bàyyi leen ci école bi ma nangoo ci carno papa ci làmmeñu cerno Cheikh Oumar Ba mii ndax bi ma ciy gëstu ñi gën a jege cerno laa doon laaj maa ngi lay jéggalu nag dama ne yow damay ñëw ba sa kër am na yeneen yu ruq ruq jinne yu bari yow laa bëgg nga wax ma ko ndax Cerno Bachir du ci nangoo yegg ak man ñoom Cerno Cheikh Omar Ba duñ ci nangoo yegg ak man waaye moom mii bu ma wéeteeg dama bëgg a dem ba këram wéet ak moom ruq jinne yëpp yëpp yëpp mu wax ma ko te bu ma ci nëbbal dara nag ah kañ ndax man comme damay wër di fen rek ma fen ko ba àddina bi yëpp dégg ko ah, lu baax day waaw fen mooy génnee lu baax rek loolu laa ci jublu waaw ah, loolu laa ci jublu te Cerno Bachir moo ma ko waxoon feeñal lu baax moo fen mooy feeñal lu baax waaw bu dee lu baax la bu dee safaan dur la tudd nit ñi ñoo déggul wolof rek bu dee safaan dur la tudd dur mooy sos kon ngeen baal ma nag wolof buy wax biir wolof ci biiri tukkulóor la maa ngi leen koy jéggul yàlla def mu séddale njobootam Cerno Seydou Nourou bi topp ci Thierno bachiru fii la newoon ci banque eh, eh, niñ koy waxee ci BICIS fii la newoon nekk fa cadre ba fa la demee retraite am na ñaari yoon yu Thierno Bachir absenté ci suñ gàmmu gi booba conférence la woon nekkagul gàmmu moom la yebaloon boobu Thierno nga woon Paris ma xam ko bu baax moom Thierno Seydou Nourou fa tabaarakallaahu tey ci fajar rek laa ko mujj ñaanal. ma xam ko bu baax loolu li ma ci jublu mooy nga xool tey wali yu bu toll ni mun Muntaga xoolal ni mu séddalee njobootam nga xool ah moom lay niroo su ko defee ñu xool ni yàlla defee mu séddale njobootam waaw kañ taal nii la baaxee de na taal yépp ñëw madaani car na madaani taal taal fa tabaarakallaahu ñu ngi lay ziyaar bu baax car na madaani yàlla def moom mu dégg laaye ja waduxulu laa min baabin waaxidin waduxulu min abwaabin mutafarriqa mu jël njabootam kenn ku ne mu xam fa nga war féete mu féetale la fa naaj bi rek yàlla def moom Cerno Muntaga mu jël njobootam yépp ñii mu tas leen ñu jëm fii ñii mu tas leen ñu jëm fële mu jël Cerno Cheikh Umar mi meññi borom waxtaan wi tey mu des ak moom ci Louga mu jël Cerno Cheikh Umar bale yóbbu kawlax jël Cerno Cheikh Ahmad Tidiane yóbbu Kër Soose ah ci jamono booba ak ni njaboot neexe mu jël njabootam yépp tas leen ndax xam ne jamono dana ñëw ëllëg lii la jamono di laaj mu jiitu jamono ndax moom mooy jamono wala yu boo gis mooy jamono jamono ci moom lay dox surtout xutbu bu toll noonu ñoom waxtu ñooy tënku ci waxtu ñooy tënku waxtooy tënku ci ñoom waaye ñoom tënkootuñ ci waxtu yàlla def nag kii ñuy waxtaanee mu ngi gane àddina 1937 bi mu ganee àddina mu jël ko bi mu jotee dal jàng mu jox ko waliyu bu baax bu ñuy wax muxtaar sugu fara muxtaar sugu fara doon wóllëre woy juram nekkoon wëllële Cerno Muntaga daaxa nekkoon soppeem doon naaru gànnaar bu bari xam-xam mag ñi xam-xam rek a leen ñoroon ah ah